Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo njiitu réew mi di président Macky moo fi waxoon apprendre à vivre avec le virus coronavirus Assane Samb xëy jël xalimam tey jii daal di wax ne apprendre à vivre avec les inondations Assane Samb nee na jëlee inondation lu jafe-jafe bi nga xam ne moo si njëkk dëkkin wi nga xam ne moom la ñu dëkk dëkkin woowu moo baaxul te nag ni xam ne moom la ñu doxalee lu jëm ci wàllum assainissement bi doxin wa baaxul bëri na ci askan wi ñoo xam ne fa ñu dëkk palaasu ndox la moo tax Assane Samb di ab taskatu xabaar ci réew mi quotidien xëy jël xalimaam wax askanu Sénégal lu leer na leen nag bay boo ngeen jéem a xool ana nan ngeen di dëkkee ak inondation yi ndax saafara ko ci réewum Sénégal nekk na loo xam ne lu jafe-jafe lay doon te nag taxawaay bi nga xam ne moom la ci kilifa yi waroon a am taxawaay boobee amul ñi nga xam ne ñoo dëkk ci banlieue bu Ndakaaru sonn nañ ba maara day taal yi askan wu baree bari si ñoom am jafe-jafe ci mbënd mi waaye ñi nga xam ne ñoo soxla ndimbal tey sàkku ndimbal amuñu benn yaakaar ci état bu Sénégal ne nag ndimbal loolee dina yegg si ñooma ñoom Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom nag jamono ji nee nañu lenn rek la ñuy sàkko 750 milliards yi nga xam ne génne woon nañ ko dugal ko ci lu jëm ci wàllum assainissement ci Sénégal 750 milliards yooyu la ñu bëgg ñu daal di koy leeral te nag li nga xam ne mooy plan Orsec ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom njort nañ ne état bu Sénégal ay luubal ak i ndëgg sërëx ak i tojaange ak i détournement lañ si bëgg a saax-saaxee alalu askan wi Birahim Seck Forum Civil xëy mer lool ci pata pataaral gi nga xam ne moom la député yi def assemblée nationale bu Sénégal kenn déggu leen ci mbir mi te lu toll ci sept cent cinquante milliards la ñu génne def ko ci mbënd mi te ba léegi nii tey la askanu senegal gën am ay jafe-jafe yéen a kaay gii du l'Observateur xëy du ñu xamal lan ñu njiitu réew di président mak sal ginnaaw bu mu tukkee ni ki démb ñëwaat na ci réewum Sénégal woote na ab réunion d'urgence tey ji ca palais ba ngir nag waxtaane lu jëm ci wàllu mbënd mi yéen a kaay gii xëy du ñu xamal lan ñu lan Sénégal Mbagnick Sakho mi nga xam ne moom lañ dénk ko ONAS lépp loo xam ne jëm na ci wàllum assainissement wane na ay tëleema maanaam wane na nag lajjite gi nga xamante ni am na ko ci mbir mi ñi nga xam ne ñoo yàqule jamono ji kenn mënu ko xayma ci réewum Sénégal exclusif yéen a mu xëy di ñu xamal laan ñu askan wi xam ne ñoo dëkk Géejawaay jamono ji mer nañu ba maara day taale tëmb nañ si ndox mi wéy di am ay jafe-jafe waaye nag mënuñoo fexe ba gis seen maire bi Aliou Sall maanaam askanu Géejawaay ñoo ngi wër Aliou Sall mënuñu ko teg bët ndax ñoom ñi xam ne ñoo am ay jafe-jafe seen maire ba Aliou Sall yónnee wu fa loolee moo leen metti ba maara détail yéen a kaay gi di suddi ko di ca xëy di ñu xamal laan ñu plan bi nga xam ne président Macky Sall tegoon na ko mu fas yéene dox diggante 2012 ak 2022 ñu dugaloon ci lu ëpp 750 milliards ngir saafara lu jëm ci wàllum inondation yi Macky Sall daf caa lajjee moo ne day at yu ñu génn Macky Sall commencé woon naa bàkku di wax na saafara na li nga xam ne mooy jafe-jafe yi waaye nag ak lajjte lañ si gis Abdou Sané dépp environnementaliste la mu xam le nee na mbënn mi ci réewum Sénégal koppar yu baree bari lay jural askan wi bisi njëkk mooy lu jëm ci plan Orsec ak marché yi nga xamante ni du am benn appel d'offre du am benn contrôle te loolu rek milliards yu bare bëri mën na saa naax saaye inondation yi li ko waral ci dakaar bokk na ci train express régional bii nga xam ne maanaam moom la ñuy tabax ak nañu ko tabaxeek matukaay yi nga xam ne moom lañ si waroon a jël ak VDN 3 bi yéen a gi ne na projet bi nga xam ne président Macky Sall tegoon na ko fukki poñ la woon waaye nag juróom-ñaar yi ba léegi nii amul benn toppatoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci mbir yaa mbay mi nga xam ne kuréel gi ëmb journaliste yi dañoo génne communiqué ñaawlu doxalinu Yakham Mbaye Yakham Mbaye deful lenn lu du menacé de mort Bamba Kassé mi nga xam ne maanaam moo jiite Synpics yéen a kaay gii da la témoye njàngale nee na yi nga xam ne moom lañ dégg gu na maanaam téeméer boo jël juróom fukk yi amee nañu bac su résultat yi continuer noonu nag dina yoo xam ne maanaam ñaar fukki at ci ginnaaw amuñu résultat yu nu mel yéen a kaay gi nee na malgré covid 19 yi ñoo ngi doon jàng dàmbooj bu kesem su authentique la mu xam ne nee na sujet yi nga xamante ni moom lañ jox élèves yi maanaam sujet yu yomb yomb la yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy ñu El Hadji Malick mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon maire bu Tivaouane jamono ji ma nga sa kaso ba dañu ko mandat dépôt ndax dafa def ay njublang ci ay terrain maanaam ñoo xam ne da leen doon jaay ay terrain yoo xamante ni ay ndëgg sërëx la sa lal yéen a kaay gii di libération xëy ñu am na benn gendarme bu tudd Babacar Nia moom ma ngi si kaso bi gendarme boobu di Babacar Nia géejëwaay cité enseignant fa la taxawoon maanaam ku ñëw solo masque mu encaissé sa xaalis jamono ji ko si na Alassane Dramane Ouattara mu bañ a bokk si élection présidentielle yi nga xam ne moom lañ dégmal sa Côte d'Ivoire ndax na nga xam ne moom lay gisee situation bi su présenté woo musiba mën naa am yéen a kaay gi mu xëy di ñu xamal lan ñu Sénégal yu bare bari amoon nañu yaakaar ci Idrissa Gana Gueye ba muy dem sa Paris Saint-Germain waaye nag jamono ji waa Paris bëggatuñu Gana Gueye yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xamal bi nga xam ne moom la ñuy wax ne